bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen xamal rek ne li ñu fi dajale woon tey jii ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci octobre ci 2022 mooy am ndaje moo xam ne rek dañ ko amaloon fii ci kër Sëñ Tuubaa gi mu jëm ci complexe Cheikh Mouhamadou Mountakha bii muy ndaje moo xam ne nag li ko waraloon mooy liggéey bi nga xam ne doon nañ ko liggéey ci Euh, euh, wàllu njàng mi da cee amoon xaaj boo xam ne moo jëmoon ci wàllu école moderne ak li ñuy wax école moderne al madarisul hadisa muy école yi nga xam ne ñooy jàngale ci wàllu euh, njàng mu bees mi di njàng mu am solo moo xam ne nag tasaaroo na ci dëkk bi ba ñu bari ñu ngi koy jàng ci wàllu araab ci wàllu franco araab ci wàllu école classique bi li taxaw daje mi am nag mooy dañu def Euh, euh, euh, kii musaadaqa fanniya musaadaqa fanniya defoon nañ ko ba noppi muy validation technique defoon nañ ko nga xam ne technicien yi ñoo ñëwoon borom xam-xam yi lañ bat programme bi nga xam ne moom lañ tëral ba seet ko ba def ci seen i dollan ak seeni i wàññi liñ ca jógee nag ñu ne nag li ci des ak mooy musaadaqa institutionnel maanaam kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk mbirum njàng mi ci dëkk bi ak ci réew mi ñu daje nag ñoom ba xool programme boobu ba lañ bat ko ba xam Euh, demee na ni mu war a demee luñ ci war a yokk ñu yokk ko ci luñ ci war a wàññi ñu ñu ñu wàññi ko ci. Euh, biñ dajee fii nag ñoom ñëpp euh, rafetlu nañ programme bi seet nañ ko wëlbati nañ ko joxe nañ ci seen i remarque yoo xam ne léegi jël nañ ko compte ba nga xam ne incha allah wa taala ya ca mën a dugg danañ ko danañ ko dugal. li nga xam ne nag moom lañ doon walide nag du programme bu bees boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy tëggaat waaye programme yi fi newoon di ci ci ñetti ñàng yooyu benn bu ci nekk dañ koo jël. seet la nga xam ne moo ca manqué la ca manqué nag ñu tegaat defar ko ci biir bokk na ca la ca manqué mooy ñun fi ñuy jàng ci Touba ku na xam ne suñu école suñu wala suñuy jàmm yàlla dañ koo teg ci tasawuf te tasawuf moom daawuñ ko jàng ci école yi niñ ko war a jàngee am na école yu bari yoo xam ne daawuñ ko jàngale léegi nag ñu ne nag nañuy jàngale tasawuf ci biir programme bi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci mbooleem école yi nga xam ne yu arab yi arab yëpp nañ ciy jàngale tasawuf ci ay yenn yenn classes yi beneen ba ci des mooy yarub murit muy atarbiyal muridiyya yarub murit am murit nu mu war a yaroo nu mu war a mel kan mooy murit lan mooy ay wari garam ban comportement la war a am nu mu war a mel loolu ñu dellu ci naaju xudaayil xaaj def ko muy programme boo xam ne xale bi daf koy jàng ba mu jeex takk fu mu ci war a àgg nu muy warmaalee ay waajuram nu muy warmaalee ab sëriñam nu muy warmaalee ay ay ay rakkam nu muy maale ay mboolem ñi nga xam ne ñoom la séqal adduna nu muy jëflante ak ñoom ñu jàngal ko ko ci biir école bi moom it mu yóbbaale ko beneen ba ci mooy euh, xale yi li ñuy jàng ci fiq ak li ñuy jàng ci tawxiid ak li ñuy jàng ci yeneen matières yi ci des ñu ñu ñu ñu liyee ko ak mbindum sëriñ bi ci misaal bu ñu doon jàng ci fiq faraidul wudu faratay njàpp jàng nañ ko ñu ko doon jàng ab ab ab la waaye bu ñu ca àggee ba jàng ko ba noppi nag ñu andil leen ko fi ko sëñ bi wax nag ci téere ci téeréem ca tasawudu sixaar wala ca tasawudu subaan nga xam ne kon xale bi day xam ne ay magamkat yéesuñu magi yeneen la mag ñooñu defoon ba def lu mel nii seeni mag it ñoom it def nañ lu toll noonu lu mel noonu rawat na Cheikhul Khadim ñu waxal ko ca la nga xam ne moo aju ca ca ca ca loola beneen ba ci des mooy e, Cheikhul Khadim ci boppam nga xam ne mooy ñun mooy suñu suñu suñu royukaay waaye e, niñ koy jàngale ci école xaw naa des waaw xaw naa des bu koo jël nag def ko muy modèle boo xam ne dañ koy jàngale ca ba mu feeñee ci àdduna ba ba ba muy e, wujji boromam lépp lu fi dox ci diggante bi lépp ñu jàngal ko xale bi ci ay Euh, njàngale mu leer mu mu mu mu jaar ci aw yoon euh, bu ko defee léegi mu xam ni moom am na ay mag yu mu war a roy am na ay mag yoo xam ne wut a jëggaani dara loo xam ne ci bitim réew lay doon beneen bi ci des mooy euh, wolof njàngum wolof bu ñuy xale yi ñuy jàng woy wala ñuy jàng chant wala ñuy jàng récitation dañ ko daan jàng rek ci woyi arab yeneen wala woyi tubaab yeneen wala keneen te ñun am nañ suñuy mag yoo xam ne léegi lépp lu ñuy wax ci wolof wax nañ ko woy nañ ko muy woyu rafet ci thème bu ne tem boo tem boo boo tudd rek way wax nañ ca loo xam ne lu rafet la sëñ Moussa Ka sëñ Mbay Jaxate sëñ euh, Samba Diarra Mbay ñun ñëpp kenn ku ci nekk wax nga ci wolof loo xam ne soo ko doon wax nit ñi sax dañuy defe ne beneen philosophe bu mag ci bitim réew moo ko wax fekk na ñu suñuy maam yi ñoo ko waxoon loolu ñu jël ko jëmbat ko ci gone yi dinañ ko jàngal ñu di ko woyantoo di ko xam la ca ne ci ay euh, contenu ñu xam ko di ko di ko jëfandikoo beneen ba ci mooy euh, école bi ku xam na ne école français bi am primaire bi rek ci lañ doon jàng éducation islamique maanaam lu jëm ci wàllu diine ci ñi nekk ci ci classe yu ndaw yi rek ñoom ñoo ko doon jàng waaye nag moyen bi ak seconde bi da daaw jàng mbirum diine ñu ne nag donc école bi nekk Touba nag moom daa war a am loolu mbirum diine da caa war a dugg ñu see jàng tarbiyal islamiyya dañ ko caa war a dañ ko caa war a boole ñu ñu boole ci loolu nag jël li nga xam ne moom lañ doon jàng ca franco arabe ya ci moyen ak secondaire ñu wàññi ko ba mu xaw a déggoo ak ñi nga xam ne ñoom dañuy jàng leneen dugalal leen ko ca euh, ca ca ca ca ca programme ba. loolu daal mooy yi nga xam ne yu mooy yu yu yu mag yoo xam ne dugg na ci biir programme bi ñu bëgg nag euh, dugal ko ci programme bi ngir daal mu dëppoo ak suñuy réalité dëppoo ak suñu millier dëppoo ak suñu millier ndax ku ne xam ne Touba am na ay xasaayis am na ay jaglay boppam yoo xam ne nuróowul kook beneen euh, dëkk. Euh, kon ñi fiy jàngee war nañoo mel noo xam ne ñeneen waruñu ne mel te loolu la koy maye mooy ñu jël li ñu am nag jàngal ko suñu gone te ndax dégg na ñun ñëpp ci njàng mi mboolem ñi nekk ci njàng mi di ci yëngu yëpp yëngu nañ crise morale bi nga xam ne am na crise de valeur am na léegi loolu lépp rek li ko waral mooy ñàkk jàng li nga moom boo tàmmulee jàng ci li nga moom ubbiku nag ci feneen ci àdduna bi yëpp lépp lu ñuy jàng tamit lu baax ci àdduna nga nga dem ko ndax sëñ Tuubaa loolu mooy mën a jëm sëñ Tuubaa li mu wax mooy ba muy ba muy ba muy wax li ñu war a jàng ci diine ak ci leneen lu dul diine kal aqidi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manafia ya fi nee na jàng leen diine jàng leen tawhid jàng leen fiq jàng leen tasawuf waaye nag bépp xam-xam bu am njëriñ it jàng leen ko kon loolu mooy wane ne kon sëñ Tuubaa day day day digal nit ñu sax ci liñ moom ba noppi ubbi ko ci àdduna bi rek lu am njariñ lu ne ñu jëli ko nag man koo mën koo jëriñoo loolu daal moo ñu fi dajale woon tey mboolem eh, ñi yëngu ci jàng ci réew mi ak ci dëkk bi daje nañ ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax ca sa xalaat euh, joxe ci sa xalaat ñu boole lépp mooñ ko nag daal di koy def programme boo xam ne incha allah bu àggee nii ko sëriñ Isaaxa waxee sëñ bi danañ ci joxe ndigal ñëpp ñuy jàngale Touba ñëpp ñu tënku ci programme boobu ba nga xam ne gone yi ñuy génne bu ñu génnee ku génnee Touba dem feneen danañ xam ne yow mii Touba nga génnee la ñëpp am da ko am te da am leneen loo xam ne keneen amu ko te fii nga ko jëlee loolu daal mooy li nga xam ne moo ñu fi